Voilà, merci. Euh, euh, je me présente, je m'appelle euh, Wali Diouf Bodian. Je suis responsable de PASTEF et euh, je suis dans le cabinet du président Ousmane Sonko. Je m'exprime sur ces événements parce que j'ai été au cœur, je suis témoin de l'ensemble des incidents qui se sont produits aujourd'hui. Et à la suite de Djibgé Ndiaye, euh, j'aimerais juste signaler que ces incidents pour en parler son euh, à mettre sous l'unique responsabilité de Doudouka et donc du président de la République, puisqu'il travaille pour le président de la République. Euh, Ndiaye l'a dit tout à l'heure, s'il y a eu ces échauffourées, ces, cette attaque-là, c'est parce que tout simplement, euh, Doudouka, étant le directeur de l'AIBD, savait d'avance que Ousmane Sonko devait voyager aujourd'hui à partir de 17 heures. Il a sciemment fait en sorte que les deux hommes se retrouvent à l'aéroport au même moment. Ça, je pèse mes mots, il l'a sciemment fait parce que il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant du fait que Ousmane Sonko était à Ziguinchor. Il ne peut aussi pas, pas dire, en tant que directeur de l'aéroport, qu'il ne savait pas que Ousmane Sonko devait revenir aujourd'hui. Ils ont donc organisé euh, une sorte de comité d'accueil chargé de saboter, d'attaquer le convoi du président Ousmane Sonko. Nous sommes ici depuis deux ou trois jours. Je pense qu'on a fait un meeting. Nous étions uniquement sur euh, une activité politique, sans violence, sans attaque, sans rien du tout. Et au moment maintenant de rentrer, c'est à ce moment-là que des éléments que nous avons identifiés comme faisant partie des soutiens de Doudouka ont attaqué le convoi. Mais comme l'a dit le président Ousmane Sonko la dernière fois, nous avons cette fois paré à toute éventualité. Parce que nous, euh, nous faisons de la politique, mais nous sommes prêts à faire face. Faire de la politique avec, et de l'opposition avec Macky Sall, c'est s'attendre à tout, parce qu'avec eux, tous les coups sont permis. nous avons fait face. Et je considère que cette fois, euh, ils ont compris la leson S'ils ne l'ont pas comprise, nous nous tenons prêts à encore accueillir Doudouka sur le terrain de la violence qu'il est en train de cultiver aujourd'hui. L'on a même l'impression que Doudouka n'existe politiquement qu'à travers des attaques perpétrées contre Ousmane Sonko. Il y a eu une première attaque on a joué la carte de l'apaisement parce que dans le fond, ce sont de simples citoyens, des enfants, des jeunes qui sont utilisés lâchement pour ces besognes-là. Aujourd'hui aussi, nous avons fait acte de grandeur en essayant de calmer les, les jeunes qui sont favorables à Ousmane Sonko et qui sont largement majoritaires à Ziguinchor. Aujourd'hui, au niveau de l'aéroport, la, le pouvoir était avec les jeunes. Le pouvoir était dans la rue au niveau de l'aéroport. Il, y aurait eu, il aurait pu se passer beaucoup, une catastrophe. On aurait pu dénombrer même des morts si on n'avait pas été, en tout cas, euh, euh, on n'avait pas appelé les gens à la sérénité. C'est ce, ce, qui s'est passé aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour dire, parce que les autres événements, je les vivais de loin, aujourd'hui, j'ai vu en direct les forces de l'ordre être dans l'expectative. les forces de l'ordre ont regardé faire les deux camps. Ils ont regardé faire et au, après maintenant les attaques, c'est là qu'on a vu une sorte de quadrillage de la zone par le déploiement même, le déploiement même de, de l'armée de l'air. Vous voyez un peu ce qui, se passe. Je pense que nous sommes un pays civilisé, un état de droit. Il faudrait que les forces de l'ordre quand même jouent pleinement leur rôle. Un rôle d'anticipation, un rôle de maintien de la paix. On ne peut pas euh, laisser les citoyens s'affronter comme cela dans une zone militarisée, à savoir l'aéroport. Aujourd'hui, il fallait voir un peu l'aéroport de, de, de, de, de Ziguinchor, qui a été transformé en champ de bataille devant les forces de l'ordre. Il y avait la police, la gendarmerie et même l'armée. Donc vous voyez un peu. Et, et, c'est le lieu de dire, en tout cas ce, le message que je veux lancer, c'est que n'y a qu'un seul responsable pour tout cela, Parce que c'est des attaques, ce n'est pas des affrontements. On voit parfois dans la presse, les gens disent qu'il s'agit d'affrontements. C'est des attaques perpétrées contre le convoi de Ousmane Sonko et une riposte légitime de, des membres aussi de ce convoi. C'est ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de blessés de leur côté cette fois. Et je voudrais lui dire euh, personnellement à Doudouka directement, lui dire que sur le terrain de la violence, il ne peut rien Aujourd'hui, Ousmane Sonko, électoralement, électoralement, est plus fort que lui. Et même si l'on descend sur le terrain de la violence, la majorité étant de notre côté, il ne pourra jamais s'en sortir. Je voudrais l'appeler pour une dernière fois à la raison, pour qu'il sache raison garder, qu'il s'organise autrement pour faire de la politique. La politique, ce n'est pas un certain nombre de, de manœuvres ou l'organisation de petites attaques comme si on était dans une guérilla. Nous sommes, dans un, nous sommes quand même au Sénégal. C'est un pays où les gens votent depuis plus d'un siècle. Il faudrait donc qu'on revienne à l'essentiel pour que nous puissions être uniquement sur le terrain politique, sans violence. Mais aujourd'hui, on est en train de transformer la Casamance euh, en une zone de violence politique inutile parce qu'on ne gagne jamais en politique dans la violence. Maintenant, au niveau de PASTEF, nous savons faire faire de l'opposition avec Macky Sall, c'est s'attendre, puisque eux, ils donnent les coups partout. Nous ferons face. Et Doudouka le sait, on se connaît très bien. Il sait qu'on peut faire face. Il sait aussi que si nous le décidons, on peut, on, on lui interdire le périmètre de, de, de, de la ville de Ziguinchor. On peut le faire. Nous ne le, nous pas. Nous sommes en, en, en, en mode civilisation, en mode respect des droits des uns et des autres. Il faudrait qu'il revienne à la raison ou que son mentor Macky Euh, le fasse revenir à la raison parce que à Ziguinchor, à Ziguinchor, la violence ne peut pas aboutir à une, à, une victoire de, de Doudouka. C'est ce que j'avais à dire par rapport à ces événements que j'aimerais juste qualifier comme étant des attaques perpétrées par le camp de Doudouka et du pouvoir à l'encontre de Ousmane Sonko. Je vous remercie.